bisimila pënd bi wureegul ci mbiram Ousmane Sonko ba tey yéenekaay yu bari ca la ñu xëyati vox populi ne ñamu yebal ngir ñu wutali ko fiche de parrainage mbaa ñu yóbbul caution wam ba tey ñu ngay loo ak ñoom ñoom waa administration yéenekaay bi di ñu xamal ne mandataire Ousmane Sonko di Ayib Daffé démb ànd na ak avocat maître Ciré Clédor Ly ak huissier ñu demati ca caisse des de et consignation foofa it naka daaf ak DGE bunt ba lan ne ràpp tëj mujj ñoo dugg tax ñooña ne ñiy jubluwuñ ci lenn lu dul fexe Ousmane Sonko yenn kayit ya koy may a parce que conseil constitutionnel lañ ko bëgg a xañ ñi ngay fàttali Macky Sall lam diggee woon ca kanam askan wa ne li des ci mandaawam bi lépp luy ay décision de justice maanaam lu yoon dogal dana fexe ba ñu doxal ka Macky mooma la yeewi askan wi joxoñ baaraam tuuma ak ministre de l'intérieur di Sidiki Kaba ci lii administration yi def teen koy ñaawlu keneen ku ko ñaawlu ca boobale bi yéenekaay di Alioune mi jàpp ne dialogue de la dernière chance faaw mu am maanaam dialogue bu mujjoo buy Walf Quotidien nee na danoon ko yóbbu donte DG ak CDC lank nañ leen a jox la ñuy wuti gannaaw ba ñooñu ñëpp lankee nag Sénat dalal na ayib dafek ñamu àndal buñ sukkandikoo ci a Le Soleil ne loola lépp ngir Ousmane Sonko bokk ci élection présidentielle bi nu jëm waaye démb caisse des dépôts et naka ministère de l'intérieur mandataire ba avocat ba ak huissier ba nu àndal ca ay buntu la nu mbëkk ndax kenn nanguwut ñu dugg loola nag indi njort lu ñaaw ci candidature Ousmane Sonko ndax buñ ko dugalee daanu ko nangu bés bi nag lu mën a am Sonko ngay teg pression administration bés bi it ma nga ñuy yëgalaale ne àtteem ak Mame Mbaye Niang ñeenti fan weeru janvier la Cour suprême jàpp ngir ko ca tax Sud Quotidien ne Sonko ngi ca xeex yépp ma nga ca xeexum ngir ñu dugalaat ko ci liste électorale yi waaye it xeexam ak Prodac ñeenti fan weeru janvier 2024 lañu ko yeggali ca kanam Cour suprême L'Observateur gis ne booba la procès moo gën a garaaw ci Ousmane Sonko Les Échos dëggal ko ne le procès le plus dangereux de Sonko maanaam procès bi gën a mën a yàqal Ousmane Sonko gën koo mën a lor journal bi nee na bii la ndax Cour suprême bu dëggalee àtteb Cour d'appel ba fa saasa Ousmane Sonko dafay ñàkk ñàkk éligibilité maanaam dootul mën a falu ci mim réew ñoom ñett ñi bëgg a falu te seeni mbir desee leer di Khalifa Sall Ousmane Sonko Karim Wade ñoo fës ci xëtu yéenekaay bi di l'info yéenekaay bi ne la desee leer dëgg kay mooy parrainage bi leen seeni député mën a defal donte boobule parrainage risque yaa gën a néew waaye taxul mu leeral seenuk yoon buñ yeggee ca conseil constitutionnel ma war a valider seeni candidature ngir ñu mën a bokk ci élection présidentielle bu 2024 boobale élection nag ñoo bind ak résolution muy Jim Rich ak Ben Cardin seen njàqare ñi ngi ko tënk ci xibaar yin jot ne Afrique sowu jant am na fa réew mu tudd Sénégal élection présidentielle ba nuy waajal administration ba neenu ma ngay def kéemtalaay ba seppi ca yenn opposant leneen lañ muy njàqare itam mooy liberté di sañ-sañ yi ñu tënk taskatu xibaar yi mel ni ñu ñu jéng ba mënuñoo wax liy dëgg mbaa ku ko wax fanaane ndungu siin lii lépp la sénateur Amérique yooye joxoñ sooga nag yëkkati càkkuteef jëme ci kilifay réew ne nanu fexe a élection yi leer ñu bàyyi koog boppam képp ku bëgg a bokk te mën ko itam ñu bàyyi la nga bokk ca yooyu la élection Ousmane Sonko min bëggatee bokk jaaree ko ci lànk koo dugal ci liste électorale yi Alioune Tine ca lay wax soxal Ousmane Sonko anakan moo cay contrôler bi lépp justice ndax yéenekaay bi ne lépp lu soxal Ousmane Sonko atte yaa ngay toppante waaye di nuroo mu njaay Cissé ne fiñ toll nii kay kenn mënatul xam lan la ab tribunal di dogal ci mbiram Ousmane Sonko yéeni kaay ba it gis ne parquet di procureur mi nga xam ne daanaka fu politique yi joxoñ fa la daan xool ma ngay tàmbale it soppiw doxin njaga la ma waxoon dara soppi ma ko ci la ma xalaatoon ca si fay ci mbiram Ousmane Sonko mooy la yoon ci ay mbiram dañ koo war a doxal fa saasa te mooy nan ko delloo ci liste électorale yi ñàkk sàmmonteeg yoon googa ak i dogalam moom la maître Khoureychi Ba di càmbar tey woote ñu des ci liy droit waaye Aminata Touré ca boobaleb yéeni ma ngay laaj ana lan moo des ci baat atub état de droit fii ci Sénégal premier ministre ba woon it càmbar ak ci réew mi yoor yoor bi nag la mu nemmeeku ca parti socialiste mooy dee na journal bi nee na danoo jóge ci parti bu am doole tiim ñépp mujjee daanu ci safara tey ci xëtam gu njëkk libération ma nga ñuy wax ci gérant station bañ faatoon ca Touba journal bi ne enquête bi ba tey ñaari pompiste ya doon liggéey ca bës booba la taqal ñi ngi woon ci garde à vue waaye mujjee nañ leen a defeere fa ko takk der ya teg nag yéenekaay bi nee lu yéeme la lu tukkee ci enquête bi booba jamono yéene kaay bi di enquête ma nga ñuy xamal ne Macky Sall daa bëgg a yeesalaat quartier yi lu mu xamle la ca conseil des ministres ba moon démb Amadou Ba mi waa APR di investir tey l'observateur moom la gis ne ma ngay tàmbalee yëngal gannaaw tekkaaralam gi ñepp doon joxoñ journal bi dellu ci meeting bam amal Paris investiture bi ko PS ak AFP defal ci njeextalu ay bés bi ak bu APR bi tey journal bi jox ci kàddooy borom xam-xam ñuy jàngat a ab jàngat bu faculté des sciences defoon joxo ñàkkum jumtukaay gi jafel warum jamaa ci Sénégal la tribune booba jamono mel ni ku naan Sénégal gi nekk fi baykat wóorul journal baa ngay joxoñ ñetti téeméeri milliards yu baykat ya ñàkk ci campagne yu njaayum gerte gi bonte demagut fenn yéene kaay bi ne jaaxle ba xamatun fun jëm moo waral baykat ya dem di jaayee seen gerte feneen loola tax Sonacos mën a diig ndax dootul am gerte te bu amul gerte du liggéey aar sunu moomeel ca booba lépp yéene kaay ne ñu liggéeyut ten war leen faa jële mooy waa señaar danu leen a tas defi leneen wàññi woon ne dana ko def le quotidien ma nga yëgal booba jamono ne du mën ne diggante ak la ko waral mooy jugement yaakaar production ban fa doon séentu ci wàllum gaz sotteegut ba tey ndax dafa nar a tardé Senelec kon dafay wéy di luye ay centrale thermique loola yi di am njeextal ci njëgu courant gi tax wàññi moom mënuñu koo séentu ci jamono yi nu dëkmal Macky mi dëkmal njeextalu nguuram moom la waxoon daara ya koy def la tamu fee jugee les yéenekaay bi ne ngir waajal kan bi dafay wéy ak juróom fukki joueur ak juróom ya mu am waaye stade ne Cissé ñaar fukk ak juróom-ñaar la cay mujjee tànn te tàmbali naa wone yoon ga sunu làmb ca xëtam gu njëkk won ñu nataali rek rek ma doon amal open press démb di waajal jonganteb dimanche am bi ñu jeexal ak l'observateur mi xëy tey ci jigéen ñi ñuy sàkku ñu ca bari seen àdduna fa lay jaaree yàqu ndax dootuñu fàtte lu ni mel yenn saay sax mu teelee na dund dund gu ñeneen ñi l'observateur ne foofa la ñuy jaaree bañ góor ba faaw ñun foofa la ñuy yem tey ñaanal leen kendal ak jàmm ba ëllëg incha